ku ñu wax abu nadr daa bokkoon ci ñi daa gas ay bàmmeel maanaam ku faatu mu gasal la bàmmeel nekkan waa ju baax yu amuk sàmm monet nekk li ne mas na may gasal kenn ab bàmmeel far gas ba sar ba jàll ci armeelu keneen maanaam bàmmeelu keneen ma xool rekk séen ci biir armeel boobee waxambaane woo xam ne daal na kanam nga rafete ak na yére yam sol rafete ak na xet ga neexe yéeme na mu toog feranklaayu fab mbindum alquran teg ko ci kaw penkam mu mbind mu wert mu rafet rafet mu di ko jàng nag ba ma gisee nag mu ne ma waaw bis penc dafa taxawa mu ne ko déedéet bis penc di taxawut mu ne ma kon dellool ma donju suuf wi fa mu newoon maanaam dellool ma sama bàmmeel bi na mu meloon nee na ma daal di koy delloowaat na mu meloon wa fii nekk na ca mu ne